Cheikh bàyyi Ndiaye borom solution ambassadeur peace and love moo leen di may seen série Kooru Boy yi ginnaaw ay tukkeem yi fasanti ko fu ne ci àdduna bi ngir yaatal ak dolli xam-xamam ñëwaat na fii ci Sénégal waaw Cheikh Baye Ndiaye borom solution guide spirituel the ambassador of peace and love ñëwaat ngir indi solution ci bépp problème koo koy borom solution yow mi am problème doon wër solution dëkk ma nopp bu dee da ngay wër yokkute ci lépp li nga doon yëngu bu dee wàllu kaaraange ngay wër aar sa bopp ba pare aar say bien bayre itam itam mu ngi fi borom 1129 jinne yi ku nekk ak mission am xam nga ne moos lu mu sóoru daan ko adresse bi benn la cité Damel numéro téléphone bi 77 972 00 00 77 972 00 00 Cheikh Ba Ndiaye l'homme multidimensionnel kon boog ak Cheikh Ba Ndiaye seeni problème jeex na tàkk lépp a ma ñam ñamale eh ñam ñamale ñii it ba mu neex mu dal di sa yaram yoo ay dangay naan lekkaala say fruit waaw bu tàngee neex bu seetee neex <laughs> la fraîche mangue nga ni la fraîche orange la fraîche ananas am na cocktail jëlal am na pêche naanal am na goyaab waay <laughs> jël si la fraîche dama koy selfie la fraîche can it be am na macaroni vermicelle ketchup mayonnaise petit pois ak spaghetti. c'est la fraîche. waaw. mais père damay dugg ah. mais bien sûr bu ma gëmul. ah kay gëm naa. non man su ma la waxee dara Ousmane. Ah. da koy gëm parce que man sama ay wax du dañ dama respecté suma parole. quand je te dis dama lay yóbbu Amérique dama la fay yóbbu. sa këyit yëpp pare na sa yaay rek laay xaar mu ñëw comme ça nga dem. oh oh waa père sama yaay fu mu nekk moom moom moom moo fa bàyyi boppam. non Ousmane yow tamit nag yàkkamti nga trop mais sa yaay mënoo voyage ñëwul. waaw. Ah. waaw mën nga dëgg gars yi taw affaire sotti ndox waaw. tu as vu defal le grand ji bu mag tuural ko ndox. ah. dem mën nga tàggu. nga dem ci sa copain yëpp di leen suñu papa nee na daf may yóbbu Amérique soo changé rek affaire bi nice. yii naa may changé. mais père euh, kii nu mu tudd. Ah, <laughs> ah, que yow fi mu toll nii.

le grand ji. grand ji dafa lëkk daal Sénégal. yaa ngi mag bi mel yow kaara nga ma mel waaye li nga def baax na de yaa maa ngi state yow Now, yeah, cool man. dem New York man doo liir yow yow yow yow doo daw gaaw a dem wuy ma dama dem ci César quoi comme naa na ko sama paa bi paaw meel bi moo may yóbbu États-Unis man New York City États-Unis man États-Unis dof nga dof gu toll nag jaawale poste Thiaroye gi ak États-Unis waxal lu leer fii du Miami are you crazy wuy ma déglu ma quoi paawu maire bi moo ni daf ma yóbbu state États-Unis ñoom Chris Brown ak Tupac gars yooyu noonu fu nekk meen fa laa war a dem di doxee nii yaa ma yow kii kàppul ko <laughs> kon de dëgg la ndax paawu boobu du caaxaan kon na ngay dem ni baa yëg ngen ni boloo meen yëpp foofu la ñuy reefe waxal feen ku ci tëdd sax États-Unis ngay gént yow boo fa demee yaay sut ñëpp jiibu mag ngay ne léegi la day da dama dugg meen dégg naa da ngay kii quoi um wax voilà xoolal gisal kenn ku ne nga wax ko mu dem quoi nga ne ko daal bel da dem États-Unis ok dafi war nga ma wax da ngay léegi yow jox jox ma tas bi day ànd ak dara de. loo bëgg. foog ne naa waaxu ci naaj bi nii di yëgale te ken jox ma mel ni ko wéru jox ma. loo bëgg loo bëgg. jox ma deux tuutaaw rek. tuutaaw wàllu tas bi am li ci yow daa mu jeex dama yow li mun na rendi ginaar ñëpp ne daal na dem États-Unis ma waaye da ngay bul xalaat kaana du xalaat jéem bu mag dem dafal dem ma kon <laughs> dafal dem bul xalaat am dolli dolli meen dolli ah kan day topp xelam. bu topp sa xel ji nga. tool yi yow ay euro ngay laal ji looy looy looy looy looy kii. yow bi ngay dem États-Unis bul wax dara. yaa waaw daal kaay ji nga ñëw ñu. yow doo dem États-Unis mais dem. bul soxor nag yaa ngi commencé soxor te da dem rek naa ñu ni duñ dem taxawal ñu. defal ma ko nuñ ko defee. Ah. yee. jàpp nañ ni niñ koy dundee war na sax ci koor gi dala vélé ñoo di ji ci koñ bi te ngandi ndax la ki la majji mayul jàmm Dieyla <laughs> <laughs> xoolal dangay continuer nii nga xool ko ci bopp koñ bee ak ñaari koñ yi ci côté bi yëpp man ak Tima dinañ def ni ñu tase ci angle bale dégg nga nañ da yowee jëy laa jëy laa yow moo def foofu ngay wax man dama la ko terewul xoolal boo mënee seede nga sedd dégg nga non non am na loo xam ne rafetul waay ku mën sa war fooru

waaw Jëlaat tam fan nga nekkoon. damaa wër ba sonn yow soo ba tey ndeela mi amul xel de ki am na nu mu mel. waaye lan moo xew. lan moo xew ci la yow da nga wër ba tey ñu wër ba sonn nga ma lan moo xew. c'est ça problème. ndeela yow moom nga ñu de yow fayoo ñu jëndoo ñu juróo ñu. ah soo ba tey yu nekk di la wëral koo xamante ne wérul mënuñu fexe ba gis ko Dieyla yow laay laaj lan mooy sa problème yow lan mooy ay waxi dof yow yow yaa am naa la nga bàyyi li ngay wax naan ay dof yow lan mooy sa problème boo nga wër boo mënu nga dem sa yoon jugal fii nga am looy expliqué non ki dafa soof waxoo waxoo moom benn dëgg eh, doy na eh, rek leel de léegi yow fan nga jëm wax la dëgg de eh? yow soo ba léegi yow ñu ngi lay topp di la wëral yow neexoo deret bari nga wax lu waay wax nga këpp ci kaane yow yaay da nga ñëw moom kan may wax ni man. yéen ñoo fekk ba sama biir kër di ma encouragé pour ma seet përëj pour gis ko. yow yaa may téere nii yow tam. naa lay wax nii Ndéla parce que depuis boobu ba léegi ñu ngi topp sa ginnaaw di la wëral. yow xamoo dara de da war a xam ne nag liggéey boo gis ci kaw suuf am na heure wàcc te man wàcc naa damay dem sama kër dem julli ji yow ni lay jàppale di la wëral boobu ba léegi ñu ngi woor di dox ci naaj bi tàng bi di wër yow ngay naka di jëlee tamit dag ñoo moom wala dag ñoo fay wacima man ngay waxal nii nii yow laay waxal bu fekkee dag ñuy jox essence nga wax ñu ko nag man maa ngi dem sama yoon wala yow fan ma wax ne moo tax sa xol lii yàlla macha allah damaa teel a jeexal. et eh, tonton feel yàq laa ay waay moo tax yàlla gën laa illaa illallah suba ka suba ka Faatumata yaa rasulullah yow lan nga may toppee ak foo jóge ki la épelse woon mu ne man dangaa génn dem jaay tante mu munoo ñëw ci kër gi te uuf gi doom dayam da caa dëngal bu koy nampal da koy xool man nag juruma leen ba leen di nampal bay xool yow li ma sa ndey def ci digg ndakaaru gi toroxal gi ma toroxal jaayloo ma sama yo ah. yóbbu ma dëkk ba bëgg maaray ak jaxatu jeeg keccax geeg ñebe ji bi may daw di ñëw xasana ma indi ah nga naan ma fii lan bu ma waxati waxi sa yaay de moo ko war yow yaay magam ñeen a bokk ndey ak baay bokk benn deleet deleet bi daw ci yow mooy daw ci moom mooy daw mooy daw ci man di daw si sesaal xam nga lan laa bëgg nga xam ko sa wax ju rëy ji laa bëgg nga teg ko te may ma sama jàmm te wëri ji Fane Ndiaye. Fane Ndiaye waat fa jaay sa mburu ma ndax loolu nga xam. mais Fane Ndiaye wër naa ko ci dëkk bi ba sonn. maa ko gis nag maa dugg ba këram jaay ko jënd boo bëggee naa la fa tegtal maa ma jox la numéro téléphone. te nga ŋaang ma wadd nag ma nga bàyyi maa fa ma nekk sa yoon newu sama jaay dégg nga. Ah. waaw lu leer laa la wax. tanta mburu xalaatuma kaa jaay. mburu du ma ko jaay len ndax la rusit yi di may am bàkkaar du ma ko nangu dama monté lunos VIP. foo na waaye yow doo noppi looy xuttiku ni di ŋàlli nii di teppeeku nii boo xaree toj fii kan moo lay ñaw a ma lay kol ah yow mënoo régler yow yàlla dalaa topp dara ay ruusitu mburu yàlla topp la dara nii mu la binde nii yow loo def dagan na yow fan la ñu bind loolu yow fan la ñu bind loolu yow te may ma foofu lu ma ndogoon yow kañ nga may wàcc may ma lu ma man tempête la damay wax nii rek waaye xam tant mooy eh eh ah doo ma yëndoo ñaata ngay eh, génne xam laa wax tant mooy génne yow mënoo def nànk yow ah bu génnee de da ngaa may téyel nii ay waa jaayum jën bi dox na waay macha allah te xoolal loolu ma la jox nag boo ci ndogoo ba pare na ci jënd euh, amoo kotol ak njàmpe bomb sa pokk yooyu mel ni naq fas sa yabooy moo ma ko yóbbee yabooy ya nga bàyyi kër ga moo xeeñ forox sama pokotaan yi danga nga yàgg a jaay naan ay wa yaps ya moo yaa ngi mel yaps ay wa yaps yaps yaa ngi mel yaps koor geeg booy nuñ koy dundee dafa ñaaw pour ñoom life bi noonu la duñ ci musa noonu